jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel ci seen site internet 24actu point com fu ngeen mën di nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu leen dalal ak jàmm ci seen euh, premier numéro li xew ci euh, réew mi tey ji nag ñu fas yéene ko doore ci waxtaan li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum transport waaye itam accident la route yi nga xamante ni nemmeeku nañ lu bëri la ci biir réew bu Sénégal ba ñu bëri ci ay doomu aadama di ci faral di ñàkk seen ay bakkan te loolu lee ñu joxañ ci baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur si waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur gu Sénégal ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy ay takk der yi nga xam ne ñoom ñooy taxaw ci kaw tali bi kenn ku nekk am ci sa responsabilité ngi situé nag responsabilité yooyu ak itam xool poñ yooyu de kenn ku nekk wàll gi ñu ci am ñu mën koo xam ak itam ah, li nga xam ne moo ci am ci ay défaillance ñu xam fan la féetee moo tax ñu daal di invité ki nga xamante ni moom moo di Pape Seck bokk ci conseil national des conducteurs du Sénégal ah, tamit bay waaram ci lu am solo fii ci dëkk bu sell bi di Touba ah, ci lu jëm ci conseil yooyu la di ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur si loolu moom moo tax nag ñu invité ko tey ngir ñu càmbar jafe-jafe yooyu nga xam ne mi ngi am ci lu jëm ci wàllu transport bi ci réew bu Sénégal kon xam naa laataa ñu dugg ci poñ ñi war a waxtaane damay bàyyi Pape nuyoo ak xam ne moo ñu staan Pape ñu ngi lay nuyu ne ñoo ngi seetaan ci biir àdduna bi yëpp di ci beral nuyoo ak ziar nag ñi nga xam ne yàlla dogal na ma nekk seen kanam muy ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les conducteurs du Sénégal maa ngi leen di nuyu baax di la jaajëfal yow tam ci liggéey bu rafet bi nga xam ne saa su ne gis na ne yaa ngi koy liggéey ci biir réew mi rawatina dëkk bu tedd bi di Touba. tàmbalee waxtaan bi ci jafe-jafe yi nga xam ne euh, yoon wi ci mbooleem nag yoon yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ndax doo toog benn semaine boo xam ne déggoo ay accident yoo xam ne ay nit ñu bari dañ cey ñàkk seen bakkan loolu naam ndogalub yàlla mu ngi ci waaye tam yorin wi nga xam ne ni borom oto yi ak ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo tali bi eh, ñi ngi koy doxale ci kaw tali bi am na ci aw yoon loolu lan nga ci mën a leeralal. ñu koy commencé rek ci yi nga xam ne ñoo séq li nga xam ne mooy tax accident di am mooy yoon bi ak ki nga xam ne nii mooy jëfandikoo yoon bi muy conducteur bi ak li nga xam ne moom lay conduire di ko jaarale ci kaw yoon bi moo xam moto la velo la wala saret la ak lu mën doon rek conducteur la euh, donc li ci jiitu rek mooy tali bi tali bi nag soxna Awa ñu bari dañoo defe ne tali bu fekkee defar nañ ko ba amul benn pax rek tali ba baax na fekk ne tali mën nañ ko defar ba mu retax te du baax ndax li tax du baax mooy du am signalisation yi nga xam ne moo ci war wala li nga xam ne moo ci war ci ay jumtuwaay moo xam dafa war a nekk ay intersection wala ay rond point ay passage pour piéton ay dos d'antibrillantisseur loolu bu ca manqué tali ba mënul nekk tali bu baax gis nañ ko fii Sénégal te muy cause accident yu bari dinañ ci dugg ci ay leeral wana ci ay firnde yu leer incha allah beneen bi ki topp mooy li ñuy jaarale ci kaw tali bi moo xam sareet la wala moto wala oto fii Sénégal rek rawatina dëkk bu tedd bi di Touba gis nga ne li nga xam ne code bi daf ko prévoir ci sareet muy 4 kata joobu nga xam ne visibilité bi dafay nekk 150 mètres gis nañ ne ci Touba sareet yu bari booy xool amuñu kata joobur amuñu benn signalisation di daw guddi loolu gis nga ne fi accident yi bari na fi lool te loolu moo koy waral. beneen bi aussi ci wàllu oto yi aussi am na ci am na oto yu baree bari melokaan bi nga xam ne moom la ñu war a melowoo pour mën a daw ci kaw tali bi meluwoowuñ ko waaye leneen li ci gën a garaaw mooy dañ ciy def ay modification yu bari ci wàllu sachet yi ay modification ci wàllu acier yi ay modification surtout ci li nga xam ne mooy. Euh, Euh, projecteur laa ko mën a tuddee ndax am na ñu koy wax antibrouillard muy lampe yi ñuy dolli ci kanam oto bi loolu projecteur la ndax boo demee ci loi bi da nga fay fekk ñu la le les modifications du dispositif éclairage exposan l'usager à un danger. loi bi daf ko tere daf ne oto bi di euh, éclairage bi nga xam ne moom la wàccaale waruloo ci soppi dara wala bu fekkee ne am nga benn soppite boo ci def li la ci mën a fekk mooy juróom benn weeri kaso ak nga fay amende vingt mille wala ñaari at kaso nga fay amende vingt euh, cinq cent mille. Pape dinaa la fi dinaa la fi parce que ñun ñëpp ñooy ñooy ñooy jëfandikoo yoon yi ci réew mi mhm. parfois da ngay dugg oto bu gudd yotee benn camion jub la da ngay foog ne lumière la. parce que fenn fu nekk ci oto yow doo seen sax oto bi mais yi nga xam ne vert zone rouge yi ngay gis dimension oto bi xam ne lee véhicule bu mag la loolu ñu ñuy romb ci tali bi dañoo xamul loi biñ ci teg wala lan moo xew. waaw loolu son awa mën na ci nekk ndax xam nga code de la route. Euh, ñoo ngi ko njëkk a am ci bi ñu amee indépendance muy 1962 moom la njëkk am code de la route mooy la loi numéro 62 31 du 6 mars 1962 ci lañ njëkk a amee code de la route. bi ñu demee ba mill 2002 accident de la circulation bu metti am boo xam ne euh, ci ki mu ki mu sababoo maanaam conducteur bi Touba gi la dëkk xam naa ko baax sama xarit la association bi mu jiite muy association des jeunes chauffeurs membre la fa. bi loolu amee euh, jamono boobu président Macky Sall bi moo nekk ministre de ci la ñëwee assemblée fekk waa direction des transports terrestres parce que routier la tudd léegi mais boobu euh, direction des transports terrestres ñu def seen rapport wax ne téeméeri accident yooyu jël juróom-ñetti fukki ak lu topp ci chauffeur si la moo waraloon président ma Sall taxaw ci biir assemblée ne chauffeur tolérance zéro. ci loolu nag la ñu votewaat yeneen loi bees muy la loi numéro 2002-30 du 24 décembre 2002 bi ñu demee ba 2004 euh, ci lañ ko promulgué muy décret numéro 2004-13 du 19 def nañ ci lépp li nga xam ne moo war ci dawalkat bi ak ak oto beeg lépp mais nag man gis naa ne li ci dal chauffeur si dal nañ ci ay ay ay takk der yu bëri mooy loi bi des nañ ko maîtriser man gëm naa loo gis naa ne am na ay takk der yu nekk sur la route des nañ ko maîtriser ndax bu fekkoon ne xam nañ li war ci loi bi yëpp am na loo xam ne kenn du ko bàyyi muy jàll rawatina lool nga wax ndax gis oto doo sa mën a gis yow numéro bi doo ko gis doo mën a gis dara ndax lampe yu bëri. ci kanam ak ci ginnaaw te loolu loi bi ne képp ku ko def nañ la teg daan yi man dama jàpp ne du ma wax ne sax takk der bi na ko na teg daan bi chauffeur bi ndax chauffeur bi dafa xamul comme takk der bi mais bu ñëwee nag takk der bi war na xam ba bu ñëwee nag ah yow ko lii nga def dama bëgg nga wàcc oto bi bu wàcc bi mun dindi loo ko lépp ne ko nag dinaa la fayloo dinaa la bàyyi nga dem mais ëllëg boo ma fi rombaatee ak lii dama lay yóbbu parce que loi bi lii ak lii la ci wax. nga xam ne yaa yore sa oto laataa nga yore oto bi am na ay charte yoo xam dañ koo teg ne lii nga war a jàng lii nga war a xam ci oto bi laataa nga yor oto bi kon yow mi nga xam ne yaa njëkk a oto yow yaa am loo war a jàng muy code de la route la la sant ci oto bi lan la la yoon sant ci dawalin bi kon yow mi nga xam ne yaa yor oto bi permis bi bi laataa nga koy am est-ce que ñi la doon saytu tamit dem nañ ba war a ba maîtriser na yow mii war ngaa mën a yor permis bi ñu doog laa jox permis bi wala loolu naka lay demee naka nga mën a yore sa oto xamoo yow li war ci oto bi xamoo li war ci tali bi jërëjëf sono awa kon dañuy ñëw sax automatiquement ci ñetteelu ki nga xam ne ñoo seq accident yi waxoon nañ tali bi ak jumtuwaay bi kon léegi man dañuy ñëw sax ci ci ci euh, nit ki jërëjëf ci question bi ak ni nga ko posé donc loolu soxna loolu nga wax lu wér la mais am lu rëy loo xam ne su ko waxee xëy na mën naa ne mën naa man njëkkuma ko wax Sénégal mais jàpp naa ne njëkk bokk naa ci njëkk ñi ko wax Sénégal mooy Sénégal duñ jàngale code de la route xam nga code rousseau de la ak code de la route bokkul code mooy signalisation yi horizontale muy moo leen ak vertical muy tableau yi mais code de la route nag réew mu nekk danga nga koy amal sa bopp euh, sukkandiku ci sa dundunu réew ak sa waa réew seenu melekaan ak seenu tëralin nga def ko fa muy loi bu ñuy voté Sénégal yaakaar naa sunu awa tey xam naa ne dooma weddi amul fenn foo moo mën a wax Sénégal ne di nga fa dem ñuy jàngale code de la man daal maa ko fii jàngale ci euh, li ma ci jot xama xamaku si néew ndax sob sax moom ma ko may ndax man jànguma français ba am yenn diplôme damaa liggéeyante rek mais yàlla dogal na xëy na loo bëgg ak def ci sa temps ak sa ak ak sa sa sa kii dëgg di nga xam lu bari. fii may waxee yow rek maa ngi benn group bu whatsapp bu ñuy wax mu ne trans boo xam ne chaque dimanche dama fay joxe cours code de la route maa ngi tolloo ñoom ci jàngal leen 31 cas yi nga xam ne dafay tax sa permis dem commission kon conducteur bi moom foofu amu fa benn responsabilité wala book tuuti responsable fa état bi nga xam ne moo yor Sénégal yor lépp lu jëm ci sunu kaaraange ci biir activité man dama jàpp ne. bi ñu wotee loi bi xëy na syndicalistes yi itam euh, defuñu seen devoir waaye nag xëy na ñoom tam ni ñu tëralee seen ay organisation ak ni ñu doxalee moo tax lu bari defu ñu ko mais jàpp naa ne loi bi bañ ko voté def nañu ay grève yu bari coow fu nañu dem fa mais ñu ko voté ba pare ñoom syndicalistes yi waroon a noo dem xool li ci concerné chauffeur ndax am na ci loo xam ne concerné wu transporteur bi la concerne wala ingénieur bi wala keneen mais li ci concerne chauffeur. foofu bëgg naa fee ñëw lan moo tax ñoom xamuñu ko wala yow permis bi dañ la koy jox sans sans pour autant que nga jàng code la route wala nan lay nan loolu lan moo tax xamuñu ko exactement man loolu laa bëgg a xamuñu ko mooy li ma la wax Sénégal amul fenn fuñ sàkk benn bërëb buñ sàkk ne fii dañ fay jàngale code de la route. léegi permis ñi passé ji ay Diourbel ak yooyu léegi nan la def ba passé ko. waaw moom laa la xam nga code de la route euh, ci la ñuy posé ay question ci ñiy passé mais code de la route nag mi ngi jariñ chauffeur bi ginnaaw bu mu amee permi dañ ko war a def renforcement de capacité xamal ko lu yi mais li mu war a jàng sa bien avant sa jàngu ko soxna Awa génnal fii ngeen def seen ay enquête 90 pour cent ci ñi am permis rawatina région Diourbel maa ngi toog jàkkaarloog àdduna yëpp ñu dima seetaan li may wax awma ci lu may tiit awma ci lu may ragal dañuy jënd seen ay permis de conduire muy lu garaaw certificat soxna Awa yaakaar naa Sénégal ku koy jaay da nga koy nëbb baccalauréat la même chose te ñaari diplôme yëpp boo ko amee fa ngay liggéey boo juumee da ngay xotti kii sànni diplôme bi nga xam ne nag mooy permis de conduire nga xam ne boo juumee am ñu bari ñu dem hôpital wala ay bakkan yu bëri faatu diplôme boobu ñu ngi koy jaay ci réew mu senegal muy lu loolu état baa ci teg bëtam ba pare bu accident yi jógee ñu jël jël ay sanctions kenn du ko du ko du ko respecté. mais son aw ñi koy li ci garaaw mooy ñi koy jaay euh, ñu ci bëri ay ay fonctionnaires de l' état ñu bàyyi seen i naw la jël leen ñoom jox leen ay bureau climatisé voiture de fonction gasoil ak salaire bu baax ñu war faa toogal réew mi mais ñu wëlbatiku nag toogal fa seen bopp di jaay ay permis de conduire te jaayoon mi naa la ci leeral lu bëri pour nga def deux codes deux conduire soixante dix mille la yoo xam ne son awa da ngay ñëw rek ñu laaj la panneau bii panneau bii pano bii yaa xam xam nga ko wala xamoo ko ñu ne la demal soo ñëwee ñaari rendez-vous mi nga code lu garaaw laa lay wax conduite bi tey Diourbel raison Diourbel am na ñu bëri ñoo xam ne am nañ permis de conduire te demuñu laal oto bi pour dawal ko te pour nga passé permis de conduire dafa am ñetti ci conduite benn nga def créneau ak circulation wala nga def demi tour ak circulation Diourbel nag am na ñoo xam ne defuñu demi tour defuñu créneau defuñu circulation te ñu ngi seen ay permis de conduire man ñu bari dañ may gis euh, di sàkku ci man ma defal leen ay renforcement de capacité ndax lan euh, am nañ permis de conduire mais mënuñoo dawal mënuñoo dawal xamuñu ko de loolu nag responsabilité bi ñaar ñoo ko seq ki nga xam ne dafa jug ne dama bëgg nekk chauffeur comme man bi ma cay toll ma ne dama bëgg nekk chauffeur ma war a dem jàng oto ba mën ko jàngi ko de la ba xam ko ñaar yooyu yëpp ma lànk ko jànguma oto ba mën ko jànguma ko de ba xam ko. ba pare ne man diplôme bi ci laa bëgg yor benn dèjà benn benn affaire am na mooy man ñàkkal naa fayda sama bopp parce que diplôme bi ma war a yor pour dundal ci sama àdduna ñàkkal naa ko fayda kon maa ngi dévaloriser sama métier. léegi nga keneen ki nag mooy ki nga xam ne comme moom la moom laa ñu kon wax moom ma nga ci mbedd mi yor ab saagam apprenti bu jóg wala xale bu jóg bëgg permis ñu la demal ci Pape Seck nga ñëw ma waxaale yow soixante-dix mille wala quatre-vingt mille parce que quatre-vingt mille bi mooy benn code ñaari conduite dem ci ingénieur ki nga xam ne moom moo nekk ci ca bërëb ba nga xam ne moo ko fa teg di ko fay defanteeg moom la may defanteeg moom mu ma ñëw ñaari rendez-vous quatre rendez-vous mun na ma demal après mu délivrer ma benn permis de conduire boo ne nii man damay am sañ-sañu di dawal kon problème bi dëgg dëgg dëgg dëgg ñi koy def ay nit lañ ñoo xam ne état moo leen jël di leen fay ci impôt réew mi ñu war faa toogal réew mi ñu wëlbati ko toogal fa seen bopp. lii moo am ci réew mi di loo xam ne na son Awa tey mën naa wax ne quatre-vingt-dix pour cent ci accident de la circulation moo xam dégâts matériels moo xam corporel la loolu moo ko waral. accident yu bëri boo gisee tey. te sëñ Pape doguma la sax mais réew mi da cee bari ñoo xam ne ak ñi ma ko war a wax ak ak naafeq parce que dañuy gis accident boo xam ne ñu bari dañ cee ñàkk seen bakkan ñu di ko métti lu chauffeur li te chauffeur la te teewut lu mel nii nit ñëpp ñu sëgg seen bët xam ne ñii ni ñu amee permis jaadu wala waruñu ko am ni ñu ko war a amee ba pare bu jëyee amee ñëpp jóg taxaw kenn ku ne yor salaam duñ situé responsabilité yi fan la war est-ce que dina ci mën am. waaw man jàpp naa ne saafara dina ci am ndax yàlla dogal na man ginnaaw li ma xam lépp dama dama gëm ne rek man maag bukki ñoo bokk boroom man yàlla képp moom moom moo ma sàkk moom moom. ma yaroo ci kanam ku baax muy Sëñ Abdou Lahat mu am lu mu def ci man la mu def ci man ma gëm ne dama koo war a dundal man lu ma ci mën a fekk rek baax ndax Sëñ Abdou doon na wax ne nekk ci dëgg wéet ci ak wéetalu ko ci mu neex ak mu naqari moom nga war a yemale ndax la mu jur a gën. beneen bi tam yéen a ngi fi nekk ay site internet yoo xam ne euh, xooloo la ci ma saam xoolal ñëw rek ne na réew mi dox na mi dox na réew mi baax. ginnaaw nag man maa ngi dox ci loolu yéen ngi dox ci loolu am yeneen ñuy dox ci ñuy jug di boole suñu jumtuwaay jàpp naa ne yëf fi mën naa saafara ndax man xëy na xalaat bi la am am xam-xam bi ak volonté bi yéen ngeen am jumtuwaay yi ak xam bi ak volonté bi pour àdduna yëpp mën koo gis kon jàpp naa ne ki nga xam ne moo jiitu réew mi muy son excellence président Macky Sall ñu koy nuyu di ko ziar bu fekkee ne lii may wax gis na ko dégg na ko man de gëm naa ne la woon ci moom bu fekkee soppeeku mooy bëgg réew mi ci ni ko doon waxee gouvernement sobre et vertueux ak rupture ah jàpp naa ne de dina dakkal nu mu gën a gaawee ñi nga xam ne dañoo nekk division régionale de transports routiers yi di jaay li nga xam ne ni mooy permis de conduire. ñi nga xam ne bëgguñoo def jalgati bëgguñoo dem di jënd ay permis bëgguñoo def loo xam ne du yoon tey bu ñu bëggoon a jàng code de naka lañ nan la ñuy def ak fan la ñu war a mën a dem ba jàng loolu. code de la route pour jàng ko fii auto école yaa ngi fi te oto école boo dem boo waxee moom mu nga fay ko mu jàngal la de la route laay wax de mais code de moom. gisaguma koy jàng li a la waxoon ci njëlbeen laa lay wax muy loi bi moom man laa gis mel man Sénégal koo xam ne yaa ngi koy jàngale fayeekuuma ci dara nag dama koy jàngale ko def ngir euh, gëm na la koo jàngal muy tableau yi mooy code la a amul ndax damay wax rek lu ma lu ma xam fu koy jàngale mais yow code bi ngay jàngale foo ko sukkandikoo waaw fi ma mooy dama ciy sant Euh, directeur bi nekkoon direction kii transport routier muy Seck Ndiaye Wade moom Thierno Alassane moo ko fa indi woon jamono bi muy nekk ministre des infrastructures ak transport maa ngi koy sant di ko gërëm ndax dafa nekkoon sama collaborateur gis xeex engagement bi ma am mu jëloon ma taf ma ci wetam ba moom moom ma jëloon code bi moom ma ko defaloon ci sama clé ma jël ko imprimer ko di ko liir passe par passe comme li ma la léegi xëy na man sama njàng sorul damaa li may nekk daara ji lañ ma doon jàngal ni ay cours mais ci laa liggéenti ba mën a liir yu bari yenn itam bu ma ko xamul tam am na juriste yoo xam ne damay dem waxtaan ak ñoom fréquenté leen ñu gën maa leeral li nga xam ne moo mooy mooy article yi ba ma gën a comprendre. est-ce que yéen ñi nga xam ne comme yéenay conseil national CNCS des bi ngeen di xeex est-ce que jéemu leen a porter plainte wala ngeen jéem a xool benn matukaay boo xam ne nii jàpp ngeen bu ngeen ko defee xëy na euh, lu mel noonu dina dakk ban xeex ngeen jël au-delà de ko ak yu mel noonu ci li nga xam moom moo doon jaayam ñun ñun ñun ñun am na leneen loo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy waaj euh, euh, ñu ngi waxtaan ak euh, ay ay ay avocat yu mag ku ci mel ni maître Antoine Diome Ndiaye nga xam ne dafay xam-xamam dafa màcc ci wàllu yoon di di xeex àq ak yelefu doomu aadama ndax li ma la waxoon sànq suñu diplôme dañ ko dévaloriser tey Sénégal ko doon chauffeur daanaka tekkeetu fi lu bari te bu njëkk chauffeur bokkoon na ci ñi gënoon a fonk damay tooñ sama gaa yi di leen ko wax ne leen. Euh, di gis kër yu mag yi ñu bari am fa ay soxna nekk seeni goro nga danga mën ngaa laaj ñu ne commerçant sàngam mooy goro sëñ nàngam ministre nàngam waaye chauffeur moom euh, doo ko dégg te pourtant kenn ëpp ñu solo ci réew mi mais dem nañ ba ñu bari ci ñun sax xamatuñu li ñu doon lan la ak nan lañ war a taxawee ndax lan mooy diplôme bi yàq nañ ko métier mi yàq nañ ko ñun nag euh, moo tax bi ñu jógee suñ suñu suñu jubluwaay mooy li ci njëkk mooy dajale chauffeur yi di waxtaan ak ñoom di leen xamal seen bopp di leen delloo si ndànk-ndànk ba pare tam di leen former ci li nga xam ne nii mooy code de la route ak code rousseau de la mais lu jëm ci wàllu xeex njaam permis moom Soxna Awa euh, dañ ci engagé wu baax a baax euh, rawatina man xaaruma ci kenn dama ci engagé wu di ci xeex baax lu ba ci fekk ma jël biig rek démb am na benn message boo xam ne jot nga ko. mën naa ko répété waat ci site bi parce que envoyé naa ko ay kilifa yu bëri ay autorités yu mag a mag a mag ci réew mi ndax ñu bëri yàlla dogal na am naa seen ay numéro jaxasoo na maa ñoom mën leen jaaykatu yàmbaay ñoo gën jaaykatu permis de conduire ndax lan mooy ñoom ñi nga xam ñooy jaaykatu permis de conduire ay criminel lañ ay reykatu nit lañ ndax bu fekkee da nga jël jumtuwaay mel ni permis de conduire jox ko nit mu yore biis 74 place ñu ne ko dawal 70 xamul loolu di daw ay 90 100 di yoo xam ne soxna comme ni nga ko waxee léegi ay accident yu garaaw yoo xam ne ay doomu aadama yu bëri dañ ci ñàkk seen bakkan ñu coow ko ay fan rek ñaare fan ñetti fan comme bi amoon daaw ci màggal gi 22 morts ba ministre bi sax déplacé wu dem Ndar bëgg faa jël ay mesures yu oto yi dootuñu daw guddi muy transport en yi mais buñ ko coowee ñaari fa ñetti fan bàyyi nañ. Sénégal dafa gaaw a fàtte. waaw sunu aw boo xoolee 2017 am nañ 791 morts te avant muy jeex sax dem na 92 parce que ki ci mujj 92e bi fii la dee Touba xoolal lool. loolu ban feebar nga dégg fi Sénégal sunu awa buy rey loolu ci doomu aadama du jabet du sida du du sax bi nga xam moo gën a euh, garaaw muy. insuffisance rénale très bien kon nga gis euh, loolu lépp jumtuwaay yi ñu koy jëlee ak programme yi ñu koy jëlee ak coono bi ñu ciy daj mais accident moom yow yow yaa ngi nii journaliste nga saa bu ñuy def yëngu-yëngu yaa ngi ñuy jàppale ñu ngi lay sant di la gërëm mais gisuloo taxawaay bi nga xam ne moo ci war dëgg-dëgg état def ko te li ma gën a metti mooy man euh, nëbbatuwuma nëbbuma fi ma far. ma yàlla dogal na depuis 2007 may ànd ak Abdoulaye Seck Sadaak di jàppale président Macky Sall ba tey mais ci doxalinam ci wàllu programme sécuritaire man convaincre ma ci gisuma ci taxawaayam vraiment maa ngi ko koy wax mu di ko dégg ma président gisuma benn taxawaayam bu rafet wala bu jekk ci li nga xam ne mooy xeex accident de la circulation ndax lu mu bon bon président Wade bi muy bi bi bi ko président Macky Sall di remplacer fekkoon na mu taxawal benn direction bu ñuy wax direction de la circulation et la sécurité routière Pape ko jiite man collaborateur am la dañ doo liggéey lu bari ci wàllu sécuritaire mais présent Macky Sall bi mu ñëwee dafa tas direction boobu heureusement Seck Ndiaye Wade bi mu ñëwee taxawal na beneen kuréel ñu koy wax ASIR alliance globale contre l'insécurité mais gis nañ tam bëri na kuréel yu nekk fii senegal yu yu banqaasoo ci ci gouvernement bu Sénégal ne dañuy xeex accident mbaaye sénégalais yëpp xam nañ ne xeex boobu leneen leen ci jublu mbay du xeex accident ndax yow yaa ngi fi doo leen gis doo leen dégg amul beneen sénégalais boo xam ne gis na leen wala mi ngi leen di dégg sur le terrain ñuy xeex xeex bu wér asda parce que xeex bi ci njëkk rek soxna Awa dañ ciy dellusiwaat mooy fexe ba jaay bàyyi jaay permis ndax dañuy wax ne. ku am sa permis nga am ko ci yoon am sa conscience tranquille mu lii dama koo am ci anam bu ma ko war a. waaw kay nga xam ne dañuy wax ne euh, bàyyi fen moo gën jàng alxuraan mais bàyyi jaay permis de conduire moo gën di ay campagne de sensibilisation tey bu fekkoon ne teg nañ lu wér a wér a wér ñu ne képp kuy amati permis de conduire da ngay dem ci auto école yi ñu formé la même auto école yi soxna Awa. jar na xoolaat ndax nit ki dafa war a dawal guddi mais ban auto école ngay gis mu jàngale fii guddi. man de auto école yi ma gisee bëccëg la ñuy jàngale. très bien beneen bi guddi ba taseeg benn auto école. beneen bi ki topp li gën a garaaw man soo naaw damay jóg ne man de dama bëgg am poids lourd mais poids lourd mooy permis bi dawar camion nga dem ci auto école bi daje fa ak Awa Ndiaye mi nga xam ne moom particulier la bëgg a dawal même signalisation lañ lay jàngal man mi bëgg dawal poids lourd ñooy bokk oto bu ñuy dawale. oto école yi wala. waaw oto super simple bu fekkee ne euh, Renault Mégane moo fa nekk par exemple cinq places ci lañ may jàngal man mi bëgg a dawal camion ëllëg ci leen lay jàngal yow mi bëgg a dawal li nga xam ne mooy particulier. kon daal nag sëñ Pape nag weñ gaa bañ a ca mànjaxaan kon fenn jagut. fenn jagul léegi nag man li ma gënoon a naqari li ma gën a naqari mooy parce que man dama amoon yaakaar ci président Macky Sall ne bu ñëwee gis na li jagadi ci réew mi ci lu ci li nga xam ne mooy secteur bi ma nekk mooy transport ak sécurité routière mu am ci taxawaay bi nga xam ne taxawaay bu mat lay doon mais wax dëgg yàlla dëgg rek la yàlla bëgg te li may wax ne sénégalais yëpp mën nañ ko seere moom jàpp na ne defar ay tali rek mooy sécurité. boo defaree da ngay defar oto ëpp importance ak bakkan yi cay jaar boo defaree tali ba pare tamit ay bakkan di ca di ca di ca di ca wadd bis bu yàlla sàkk kenn mënu koo natt kenn mënu koo ma loolu tamit yaakaar naa bu day mujj infrastructure ba day mujj valeur ba mu waroon a am. du ko mën a am yaakaar naa ne ci ñaari wàll yëpp la parce que kii nga xam ne tam moom moo jóg dem ñu nangu ñu di ko yaay permew mm-hmm. nga xam ne xam na li ci li ci li daan yi ko ci mën a fekk xam na danger yi ko ci mën a fekk mu nangoo jënd permis boobu yaakaar naa ñaari ñaari côté yëpp ñoo am ñu mm-hmm. am ñoo am ñoo kii xam naa ñi ngi ma signalé que ne waxtu bi di des bariwul mais li ma bëggoon ñu tënke ko jeexale ko rek may comme comme ku mel na yow mm-hmm. yaa ngi dox jëmale ci li nga xam ne moom moo jëm naka la ñuy régulariser transport bi Sénégal Eh, di nga di nga doo bëri ay ndimbal nag ndax Sénégal booy dox ci yoon pour nga gis ku la dimbali ah kay jafe da ngay dox a dox a dox ba mujj nga xàddi delluwaat fi nga jóge woon mais doo gaaw a gis ku na yow nga xam ne Touba li fi yëngatu presque jeunes yi ñu ci bëri ay ay dañuy ak yooyu di yor ay charrette ak yu mel noonu est-ce que état bi tamit waru woon dugal loxoom ci ku mel na yow mën a ubbi ay centre yu mag yoo xam ne dañuy xëy suba ba ngoon di conscientiser nit ñi ak di leen fa jàngal nga xam ne da ngay dem gratuitement doo fay dara ak est-ce que yaa ngi dox ci projet yu mel noonu waaw maa ngi dox léegi rek bu ñu génnee mën naa laa woon benn livre 44 pages boo xam ne maa ngi ko defar maquette bi yëpp pare na monté nañ tableau yëpp sama informaticien bi lépp pare na ñoo koy bind olof laa ko bëgg a def bu olof boo xam ne xam ne français boo koy bind olof bi nga xam ne nii tey ñu bari moom la ñuy liir seen whatsapp am alxuraan nga ko liir boo xamee alxuraan mën nga que xam nga ñu bari bu njëkk ba whatsapp bi jàppale na ba ñu bëri pour ñuy bind am na ñoo xam ne xamoo xamoo ci ñoom benn jàng mais dañuy bind message whatsapp di bind yëpp waaw foofu laa sukkandiku euh, moom laa koy def lépp pare na euh, pour génn ko comme li ma moo ci nekk man depuis 2009 maa ngi sur le terrain lu ne daj naa ko lu ne dund naa ko lu ne gis naa ko te awa li ci gën a garaaw mooy réew mi bu fekkee da ngay dox pour mu baax dafa mel ni ci ngay gën a bëree ay gàllankoor man dem naa ba ay nit sax benn bis benn kilifa gu mag xëy na mën naa ko suturaal fii la dëkk Mbacke sant sa sëriñ bi la yabal ay nit pour ñu agressé ma ndax lan li ma doon wax maanaam euh, intérêt bi nekku ci daf koy yàqal xoolul ne damay defaral dëkk bi maamam laay defaral waaye moom intérêt lay xool euh, mu nekk lu doy waar maa ngi la ko doon sànq sax gis nga ingénieur bi ki nekk Diourbel mu chef de service waal bi daf maa woo daf maa njëkk envoyé message message bi naa la ko woon sa portable nga lire ko daf maa envoyé benn message na ma bul ma envoyé genre message yi parce que man awma temps di di wax yenn yi ak ak di topp ñoom dañuy dañuy dañuy ut parce que dama leen dama dama dama leen message ba envoyé ñëpp pour affaire njaayu permis bi ci ko envoyé ginnaaw bi daf ma ma ma ma envoyé ko message ne ko du ma jug mukk ci xeex ak njaayum permis mu daal may woo téléphone. nee na Pape na nga ko maa ngi fi mu xamante nañ bu baax sama waay ngi mën na ko waaw mu ne ma nag ay julli dama bëgg euh, ñu seq jàmm mën na ko la xew mu ne ma gis naa message bi nga ma envoyé mais bul ma ko envoyé ti sinon man dinaa woo sama huissier ah, euh, ak mu sama avocat. ñu porté la plainte devant le muy moom muy keneen damaa bëgg plainte boobu bu mu ko waaj bu ko moroomam waaj nañ ko def nu mu gën a gaawee ba ma dem ci kanam procureur am na leneen loo xam ne nii bis ma jàkkaar la procureur dinaa ko wax lu gën a garaaw li nga xam ne maa ngi koy wax sama whatsapp wala sama facebook wala di ko bind ay message di leen ko envoyé xam nga soo envoyé réew mi am na ñoo dem ba jàpp ne seen maam ñoo ko tabax seen maam ñoo ko moom ndax boo demee ba def yenn mbir yi mu ne fanga fangara ñëpp di ko gis mu nekk luy lor askan bi 24 heures sur 24 am nit ñu jug ne loolu dañ koy xeex pour mu jóge fi yow nga ne ñi koy xeex dinañ ko bàyyi wala man dinaa leen teg fitna loolu Soxna Awa comme li nga wax rek réew mi vraiment euh, ñu ci bëree bëri ci waa réew mi bëgguñu dëgg ay caaxaan lañ bëgg waaye nag nañu xam ne euh, fu ndox daan taa comme ni ñu koy waxee ba tey rek boo fa demee ni mu fa fekk teg teg am na ñoo xam ne duñ découragé mukk ci li nga xam ne nii moom lañ dëgg ma fonk naa nag li may def ndax lan. Euh, taalibe laa te dama dama dama doon dawal ay kilifa yu bari di déglu seen waxtaan am na benn kilifa bu ma jëlee ci moom mu ne sëñ Mourtala mos na ko wax ne ko xeex moom lu mat a moytu la waaye boo ci xasee dugg na ko fonk xeexum njaay permis de conduire ak accident dugg naa ci depuis 2009 dama koy fonk lu ma ci góobee rek ma gar ko jërëjëf euh, xam naa ne euh, émission bi fii lay jeexee incha allah daañu seqaat yeneen jotaayu waxtaan incha allah ngir euh, régulariser li nga xam ne secteur boobu naan na nekk lu jafe-jafe mais kenn ku nekk bu ci bayee waaram yaakaar naa ni am na yu baree bare yoo xam ne dinañ ko dépassé lan kàddu ngay tëjee. waaw kàddu yu may tëjee soxna Awa di leen sant rek di leen gërëm tey tàllal loxo Sénégalais yëpp du tàllal loxo pour ñu jox ma dara parce que nit ki doone amuma lii rek du ma def lii man li ma man ni ma ko mënee maa ngi koy def te du ma ci jóg te yàpp naa ne tey lu mu néew néew lu ma junni chauffeur ñi mooy déglu maa ngi defal ay formation gratuite yaakaar naa ne loolu ma am centre rek ma ñàkk am centre du ci dara di di jeexal tamit di wax président Macky Sall mu góorgóorlu ci te xam ne defar ay infrastructure lu ci mel autoroute Ila Touba 418 milliards du rek mooy créer ak mooy mooy jeexal accident dafa war am mesure d' accompagnement mesure mooy fexe ba oto yi ñu ciy jaarale baax waaye fexe ba tam ñi ciy jaarale oto yi xam li ñuy jaarale yi mooy lan kon lu mel ne Touba tey rek waroon naa am benn centre de renforcement de capacité boo xam ne dañ ko mën a bénéficier ndax ñaari yëf soxna Awa foofu laay jeexle benn mooy infrastructure bi ñu am te ñoo ko njëkk am muy 113 kilomètres de route de de autoroute euh, foofu laay jeexle rek di sant ñëpp di leen gërëm di la gërëm yow aussi di la ñaanal yàlla gën la dimbali gën la taxawu ba lépp li nga xam ne yéen a nga ko réew mi yéen ko àdduna bi yëpp yàlla mën na ko defal di wax itam ñoo ngi sàggane ak seetaan loo xam ne luñ mën di xeex rek loolu moo gën a garaaw muy njaayam permis ndax des na ay année ay ay fekk 5 ans son awa 10 bu fekkee ne saafara wuñ lii nga xam ne nii moom la ñuy xeex ah man de gëm naa ne dinañ dem ba tukki sax nit dootu ko ñemee def ndax ay accident de la route yoo xam ne dana bëri trop. beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Pape Seck bu conseil national des conducteurs du Sénégal ci leeral yu am solo yi nga xamante ni andil na ko tey ji ci li xew ci euh, réew mi émission boo xam ne nii mi ngi euh, bàyyeekoo fi seen site internet di 24actu point com incha allah ni lañ koy fas yéene ànd ak yéen ci bépp secteur euh, ci réew bu Sénégal lépp li nga xamante ne ni ay jafe-jafe la ci wala lu ay avantage la ci ñu ànd a ay yoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci ñu daal ci waxtaan ngir andi ci ay saafara loolu nag nekk suñu rôle bii di 24actu point com liñ bëggoon rek moom mooy euh, fexe ba lépp jàkk waaye itam fexe ba lépp baax euh, réew mi di Sénégal jëm kanam ñi ngi sant bu baax ci gërëm waaye itam di jéggalu ñëpp di leen dig daje beneen yoon jërë jëf